ci atum 2005 ba tey lekk mu ngi jëfandikoo benn plateforme di xarala bu yées ci wàllu yombal liggéeyam bi jëm ci compteur woyofal yi ci anam yu wóor ànd ak kaaraange ngir gën a wéyal farloom ci jagleel askan wi ay jumtukaay ak liggéey bu mucc ayib ànd ak kaaraange ñu fas yéene boobu le plateforme mu tegu ci tëralin yi àdduna bi taxawal ñu naan ko norme internationale STS bi fi nekk boobu ba tey méngawutul ak jamono. ba tax na lu ko dale le 15 octobre 2024 soo leen jëndee seen crédit woyofal di ngeen jot ñetti code yu ñaar fukki araf benn bu nekk boo leen bëggee yeesal seen compteur lu yomb la da ngeen di dugal code bu nekk validé ko boo leen dugalee ñetti code yépp validé benn bu nekk ba noppi seen compteur dina leen wan ñaata kilowatt ngeen rechargé méngoog njëg bi ngeen jënd noonu ngeen doxalee nag ci yeesal du leen dikkee dara te itam du indi benn gàllankoor ci seeni facture ak itam tolluwaayu li ngeen jënd ci courant yomb na wóor na am kaarange te doo si fay dara ngir bépp tegtal ak i leeral mën ngeen jokkook ñun ci numéro téléphone yii di 33 867 66 66 wala 30 100 66 66 mën ngeen jokkook ñun si internet bi itam saa su ne ci sunuy réseaux sociaux officiels te itam balaa le 15 octobre bu leen fàtte dugal gaaw seen crédit courant yi ngeen jotoon a jënd ngir mën ko jëfandikoo bala ngeen koy ñàkk. Sénélec, l'énergie de tous les possibles. maaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen wax man Jéegi Diop doomu Jeewo Diallo doomu Khalifa Diop dëkk Ndar fii ci Dakar dëkk Kër Ndiaye Lo gis naa loo xamante ni convacation xaw ma mandat dara xaw ma lu mu doon ñu ne damaa maa ngi fii toog sama kër ak sama njaboot ak sama borom kër du ma daw du ma daay du ma làqatu Sonko ak Jomaay ñu ma soxlaa xam nañ fan laa nekk te doowuma puusuma làqatuwuma ndax defuma lu tax may daw defuma lu tax may làqatu defuma lu tax may ragal dama bëgg àdduna yëpp dégg ko xam xoqatal bi ñi ñu doon wax si ñoom dëgg la te ñi ngi si te ñoom delluwuñ ci ginnaaw te billahi lazi laa ilaha illa huwa delluwuma ci ginnaaw te ragaluma maa ngi sama kër daw ma fenn maa ngi biir Sénégal gii naka àdduna yépp dégg ñu xam ni ma li ñu bind ni ñu may wër ci frontière yi ni joxe nañ ma convocation ni nañ ma jàpp ma maa ngi fii lu ñu bëgg nañ ko def waaye sama conviction première ànd ak président Macky Sall ànd ak APR liggéey pour Sénégal dellu ma ci ginnaaw te fas yéene wu ma ko avis de recherche ci ki nga xamante ne si nag moo di Dieyki Diop bu ABR boobule not de recherche sax nag ñu daal di koy partagé lool ci li nga xamante ne si nag moo di réseaux sociaux yi. ca boobu leen note ñu daal ci def note pour les chefs de commissariat spéciaux secteur frontalier ak li nga xamante ne si nag moo di centre de ciblage ou de pilotage te loolee nag daan nañuy daal di xamle avis de recherche d'un individu nommé Dieki Diop moomee sax nag ñi nga xamante ne si nag ñoo koy daal di war mu nekk waa division des investigations criminelles di dikk li waral ñu koy war bokk na ci li nga xamante ne si nag moo di wàllum escroquerie sur les deniers publics ci loolee it doolee nag daan nay daal di waxal ki nga xamante ne si nag moo di Dieyki Diop moom moomee sax nag daan nay def ab vidéo daal di xamle dawul demul fenn waa dig buñ ko soxlaa xam nañ fi ñu fekk ndax moom moom actuellement mu ngi foofee nag ci këram fa nga xam ne fa la dëkk ak njabootam ak borom këram buñ ko soxlaa nañ ko daal di fekk foofee nag wante génnul fenn ci Sénégal mu ngi fii ci fi nga xamante ne si nag moo di Kër njaay Lo fi nga xam ne foofu la daal di dëkk. La coopérative Santial Madias est de retour.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 très proche du péage très accessible da ngay joxe acompte moitié restant bi si fukki weer qui dit mieux avec Santhialma Dias